mi lu doon lu am solo ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew mi jàmm joojee seetlu nañ que ne euh, dellusi na ci réew mi euh, depuis altine passé bi nga xamee ne à pareille heure le président avait fini de prononcer un discours une adresse à la nation doon nag euh, xamle ne du bokk ci élection yi ñëw mu doon loo xam ne xëy na bett nañu bëree bëri alliance pour la république bokk na ci ñenn ci ay membres am ay responsables am tey ji une semaine après ndax digéré ngeen loolee waa ñun dañuy sant yàlla bam ñu boolee kilifa gu mel ni son excellence le président de la république ndax euh, mot na njiit wane na ne moom euh, Sénégal lay jiital si lépp lu mu mën di nekk ndax bu ñu seetloo bëri na ci parti bi quand même ay leader yoo xam ne dañu milité woon pour que moom mu déclarer candidature am bëri ay organisation yu milité woon pour mu moom mu mu mu déclarer candidature am mais à chaque fois Euh, bi bi mu jëlee décision bi wane na ne président am na ñuy wax sax ne dafa renoncer mais jàpp naa ne renonciation dafay fekk mu waxoon ne damay nekk candidat mm-hmm. mais mosu ko wax li mu bind wax ko defe naa loolu la wax sénégalais yi te ci témoignage yëpp am na kilifa yu génn sa ne ah en tout cas président lii nga ma waxoon man te loolu nga def donc gàcce ngaalaama et loolu mooy wane que nekk président de la république quand même honoré na en tout cas képp koo xam ne tey bokkoon nga ci njabootam malgré que suñu bëgg-bëgg moo nekkoon ndax ñun li ñu jàpp mooy que texte yi permettre nañ ko ko mm-hmm. waaye moom jàpp na ne lu lu nekkoon ci moom la parole la woon xool na ne Sénégal warul teg benn tànk boo xam ne tey dina xaw a tey même xelu nit ñi moo tax tey mu jël Sénégal teg ko ci kaw bëgg-bëgg privé yooyu yëpp ne Sénégal moom moo sut loolu yëpp et tey du déclarer candidature candidature dafay li mu bindoon wax ko si loolu lay def te loolu la def ñu ko ciy félicité di ko ci encouragé te di ko ci ñaanal yàlla aussi parce que xam nañ ne euh, boo xoolee même retombées yi boo xoolee retours yi boo xoolee commentaires yi ci Sénégal yi ak bitim réew ñëpp wax ko jàpp naa ne xëy na sa suma genre gi nga xam ne ñu ngi doon milité mu mu doon candidature am xëy na sa mun nañ jàpp ne moom décision bi mu jël xëy na lañ ko waroon xelal mais ba tey may wax ak yow suma position moo nekkoon ne am na ci droit moo tax ma milité ko wax ko mm-hmm. suñu kilifa rusloo wuñu parce que wane na ne mot na njiit wane na ne ab leader euh, homme d'état la wane na ne en tout cas njabootam aussi yar na leen ci ñu wax ci lu ñu gëm mais au finish bu jëlee décision bi mu jël aussi attitude bi nga xam ne E njabootam am na ko coalition yam am ko ñëpp mun ko ko nangul te déggoo kenn ne ko du lii nga ma waxoon du lii nga waroon wax du moment bii nga ko waroon a wax ñëpp mun ko ko nangul mm-hmm. donc tey gën nañu am fierte bokk ci njaboot ju mel ni Benno Bokk Yaakaar boobu gën nañu am fierté bokk ci parti bu ñuy tuddee Alliance pour la République mais encore une fois gën nañu am fierte am njiit bu mel ni son excellence le président de la ah, République xëy na le débat ne devrait plus se poser wax na que ne du bokk en 2020 22 mais yaa ngi koy wax euh, dañoo renoncé mhm. parce que musul wane intention euh, briguer mhm. euh, li nga xam ne mooy troisième mandat boobee. mais par rapport aux actes posés am na ñoo xam ne tey jii nii ñu ngi commencé rafetlu nañ dogal bi mais ils se disent que ne du loo xam ne mbébatoon na ko ay at ci ginnaaw mhm. xëy na ay circonstances yu dajaloo. ñoo nekk derrière cette initiative. parce que aussi am na nombre un certain nombre d'actes yoo xam ne posé na ko dans le passé. yu doon njortuloo que ne dafa bëggoon yootu loolee muy muy candidature bi. évidemment euh, climat social bi la pression xëy na de l'extérieur l'opinion internationale euh, Sénégal aussi loolee yëpp tey jii nii am na ñu jàpp ne moo tax wala bokk na ci li tax moom moom mu renoncé waaw xam nga loolu aussi dafay nekk loo xam ne mun nga daje kilifa yoo xam ne mun nañuy séntu loolu ba tax ñu def déclaration même buñ xamee ne duma ma gañe mhm. nit ñi aussi ab askan buñ ci nekkee loo nekk nekk ab opposant war na am foo xam ne limite yoo xam ne waroo fa yeggee te war nga mën a expliquer même population yi ñu comprendre mhm. mais du état rek moom moo am obligation quand même informer l'opinion yow mi nga xam ne tey da nga nekk un simple citoyen bu situation amee ab xam-xam bi la yàlla dénk bu ndaw war nga ko mën a séddoog sa askan ba bu ay nit bëggee jóg def naka su dul noonu sa ñu mën a ne ah bu ma dégloo diwkat ah jàpp naa ne lii moo normal lii normalul parce que ab candidature prisonnier bi door a jóge biir prison sa munoo ko tere mu dajale dossier yam ànd ak gàngooram ne candidat laa bëgg a ne munoo ko rawatina nag un président sortant dafa euh, war a am ku war a àtte loolu mooy le principe et c'est élémentaire man même un ku am dix-huit ans tey su ko neexee mu ne candidat ah, la dogal bi rafet na mais am na ñu ko def benn reproche mooy que ne pourquoi avoir attendu tout ce temps dans la mesure où euh, dans le passé ay manifestation am na am na sax ñu ñàkk seen bakkan tey jii ni ñoom ñëpp ñu ko mettre ci ci doowu euh, président de la république ak euh, ce silence bi nga xam ne observé na ko depuis tout ce temps waaw c'est pour vous dire que ce n'est pas les gens yi doon manifester ñoom ñooy décider agenda président de la république moom réew lañ ko dénk mhm. mu am nu mu war a doxale si biir loolu dafa am loo xam ne moom maîtriser na ko xam ko te ñeneen ñi peut-être xamuñu lool maîtriser wuñ ko moo tax ku ne dafa war a yem ci liñ la dénk moom tey ñi doon wax naan lii la bëgg wala lii lay def ba tax ñu reylu ay doomi bi ñu ko déglu xëy na bu ñu tëddee keroog sa nelawuñ parce que war na leen def cas de conscience. bu dee ay góor lañ se dire tout ça ah non non non tout ça pour ça. Mhm. parce que nit ki nga taxaw won askan réew mi yëpp ne lii moo nekk intention yam lii la nar a def te quelque que soit alpha parce que bu ñu rappelé woo avec le président Abdoulaye Wade les mêmes actes les mêmes euh, parole même juristes yi ñoo fi nekkoon mais terewul dañoo xeex. mais après am na ku àtte président mm. Wade demul élection si. est-ce que aujourd'hui le président Macky Sall ne pouvait pas avoir cette même attitude ailleurs ay moroomam chef d'État ñoo ko def mm-hmm. même si y a des centaines de morts def nañu ko gagné nañ gagnéwun beneen débat la mais je pense que ne tey waroon na mën a am taxawaay boobu quel que soit en tout cas li muy jur comme jafe-jafe li muy jur comme ay ay ay ay pertes humaines mais moom mesuré na loolu yëpp ba xam ne moom li mu war a def lay def. Mhm. nekkul tey koo xam ne njaboot politique bi mu bokk wala même famille personnelle am ñoo koy guider wala boog opposition moo koy guider te loolu la ñuy xaar ci kilifa kilifa moo war di wax njabootam fu ma war di jaar. Mhm. mais du njaboot ji moo war a taxaw parce que du yow. vous dites que le président Sall est un homme qui ne aucune pression. aucune pression parce que tey bu doon subir pression pression bi mu war a njëkk a subir mooy pression njabootam. Mhm. pression parti am moom tout le temps opposition bu ñu waxee ak président. mais d'où la question est-ce que bëggal ngeen ko jàmm. parce que aussi tey bu forcé woon xëy na peut-être porte bi lay jaar. non non non bëggal nañ ko jàmm parce que ñun li ñu gëm parce que mooy li may wax rek bu ñu seetee mbir mii tey yàlla def ñu permettre ñu xam ko mais peut-être. ñaanuma yàlla am dëgg ci sénégalais yi parce que li may ragal man moom mooy que ne président de la république jóge fii te li ma gis en face dafa tey suma xel dafa hmm. dalul suma xel moo tax man ma jàpp ne aujourd'hui le président de la république est l'homme de la situation parce que Sénégal toll na foo xam ne li ma gis en face j'ai beaucoup de respect pour ñoom mais bu daloon suma xel ak ni ma gisee tey ñu bëgg a jële nguur du loo xam ne même ki koy jël du ko jëriñoo parce que tey boo xesee ba toog rek yi am na ñeneen ñuy jóg pour opposer wu mm-hmm. te boo wonee xale yi ne leen voilà mu ngi noonu euh, jóg leen ñu xeex jóg leen ñu reyante mais suba keneen mun na am la même force euh, pour mun a yëkkati askan bi bu boobaa yow yaay teewaat sa police ak sa gendarmerie mm-hmm. di dal si ñoom da nga wax lu am solo li nga am gis en face euh, wóolu woo ko dal